waaw. kii kulu. sigiri ñu jéem a kii tout le monde. tey taxawal taxawal la forma. Dudu. li ma waxoon lépp rek laay waxaat. DJ wàcce ma ñëw. du tamit bu ma wax loo waaye wàccal tuuti li ma waxaat. lenn lii maanaam lenn li ngeen def. yéen ci seen jëmmi bopp li ngeen di def nii ci gàtt xel la bokk ñëw taxaw rek di xulli jëndoo leen jëndaanu leen foto wu ngeen a photo woo photo ba fi mu toll sama bët yi damay tëdd ba guddi ay place lay gis tan sa tan tur tee lii àq la lii àq la te nag jaaduwul de yéen a ngi ree waaye yéen a ngi ree seen musiba di jë yéegal tuuti ñi ñàkk nañ waay yéen ah waaw waaw dégg loolu ndeysaan la bëgg a dig jéem a isi jéem a isi walaay day laaj man mu ko def foo ma woo isi jéem a isi allo waaw Amale Fado géej waay yéen yéen a bëgg. ay waay joxal leen sama baat maa ngi nii yàlla ay waay sama paa bi. Ba Diagne mii wax dëgg baax na si Sénégal dëkk ni mu lu de. ay Ba Diagne. dikkal dikkal ñoo ngi nii. suñu baay yaa ngi ko. suñu baay yaa ngi. waaw dikkal doo koy ne yàlla. papa de looy taal ne. papa yi ñu ay. ay weer fii. ci biir xol bi fii leen बि ॾिसो लक्ष्मी टके करा हथियार निकल निकल निकल आई टके करा हथियार वो टके करा हथियार सब पैर मोगनी आई भाई वो मैं मैं जाती हूं ए पैर कब चिलो लूने आई चल चल चल वो वो ए ली नेक्स्ट bàyyi kii e bàyyi leen buntu bi e bàyyi leen e bàyyi leen buntu bi balaa ñuy pause gaay leen e gaay leen bàyyi leen buntu bi gaay leen si buntu gaay leen bëgg bi gaay leen jëndkat yi dañuy yëg jëndkat yi dañuy yëg bàyyi leen buntu bi s'il vous plaît waxal xam naa ci xoolal ni ma nabee gel bi xoolal ni ma bëggee gel bi ma du ko jooy ci moom ni jaay bi ma bàyyi ko xamul lu ma yëg ci moom dégg loolu dégg loolu tàcc leen tàcc leen ko tàcc leen ko xoolal ni moo ki nekk de waaw nañ ma rey nañ ma rey ay mbër yooyu ngay bës di xaar 2 secondes ñu photo moom 10 secondes la ko def moo tax nii rek laa def photo yooyu day yàq nga ne loolu waaw dañ leen di jox 3 ku trouvé ñaari ñu jox la parfum bu jar 12000 ay waay yéen ñeen waajal xanaa wax leen ko ay waay kenn xamul kii de ni mu dëgg rëfit moom si 4 heures rëfit taxaw naan man kaa yéegal waay jóg ko meer am ret got ko sambal sambal kaay got ko sambal sambal sambal sambal sambal waaye dama naan liggéey liggéey liggéey coupé li ñu daloon démb gi ñuy bëgg daal ku romb xul ne wa dawal libre